fédération Federation nak daf fi am réunion congrès amal chaque cinq ans ren ñu amal le 26 et le 27 janvier 2019, inshallah euh ñu donc ndax té euh, gis nañ ni bare bare fay si 6000 juroom Euh, doomu aadama daañu jóge fu nekk si àdduna bi ñëw fii euh, dana am ñi nga xam ni bi dañu leen di invité ak ay participants buñ ko xaymaa daal de daa ñu teew fii mbooloo yu toll noonu fu ñu teew rek état dafa war a nekk si seen wet àndanteeg euh, sëriñ si njabootu sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma yëpp ñu jàppale la ba bés boobu gan yi ñëw yi fii yëpp ñu assurer seen sécurité donc wàllu sécurité euh, lépp daañu ko matal incha allah daañu àndanteeg ñoom si tant yi daañu àndanteeg ñoom si béréb yi nga xam ne fa la ñuy dalal si dalukaay yi daañu àndanteeg ñoom si lépp sécurité bi dina law ba sax ñi nga xam ni bi jóge nañu si yeneen i béréb comme suñu nja suñu mbokk yi dëkk yi Gàmbi war a ñëw fii pour ñu yombalal leen euh, nu ñuy nu ñuy tukkee ba yegg si fii si Touba te ñu bañ am benn tolof tolof si yoon ak euh, waa force de l'ordre yëpp daañu leen jox instruction ñu jàppale leen tax ba yombale leen tukki bi ñu ñëw fii si Touba daañu tamit sécurité bi dina taxaw tamit si biir Touba circulation bi sécurité bi dina liggéeyanteeg waa comité euh, d'organisation yi nga xam ne ñoom it dañu am seen seen sécurité spéciale lëkkaloo ak ñoom ba nga xamante ni bi euh, nit ñi daañu am jàmm daañu ñëw si congrès bi si jàmm mën a ñibbi si jàmm donc walu bobu walu sécurité bi dañu ci liggéey walu santé tamit ñoom it taxaw nañu tem ndaxte euh, wa wilaya euh, bare nañu du si biir euh, congrès googu def consultation gratuite donc district bi dina leen accompagner si loolu danañu réquisitionné bépp ndaw bi nga xam ne yaa ngi liggéey si wàllu santé nga àndanteeg ñoom waa wilaya ba ñu xamante bi consultation gratuite bi dañu ko amal si jàppale askan bi si lu si si wàllu euh, paj nga maam si taxaw bu soobee yàlla ba lépp li nga xamante bi soxla nañ ko ñu am si ndam euh, ñoom tamit daañu lëkkoo ak wa wa sapeur pompier yi ñoom it ñu war a taxaw jàppale leen euh, si wàllu ambulance ñu ñu ñu ñu ñu ñu ànd si liggéey bi Euh, jàppale aussi waa sapeur yi daañu teew si tant yi xool nit yi nu ñuy organiser tant yi fekk béréb yi nga xam ne bi foofu la ñu war a toggee ñu xool ko saytu ko ba nga xamante ni bi daal lépp daal dana tegu si yoon donc ñoom tamit daañu teew daañu si jàpp euh, bu dee si wàllu hydraulique tamit daañu leen jàppale si wàllu ndox ak ay bâche à eau ndaxte mbooloo boobu fu muy teew ndox waru fa manqué incha allah donc euh, daañu taxaw tamit si wàllu courant bi ba foofu dina tubaab moom d'habitude moom hors délestage la ñëpp xam nañu loolu waaye bés boobu dana waa seen rek daañu farlu daañu farlu àndante ak ñoom ba lépp lu ñu soxla si wàllu courant ñu mën leen ko jottali euh, si wàllu Sonatel tamit bu soobee yàlla ñoom it nee nañu daan ñu leen jàppale ñu wàccale leen foofu benn fil n'est-ce pour que ñu mën di ñu soxla ay internet yeeg yooyu parce que jamono boobu lay nekk yooyu yëpp tamit mën a yemb donc dal mën wax ni service yi nga bi ñoo nekk fii si sunu sunu gox bi service yi nga xamante bi ñun ñoo leen santé sapeur hydraulique wàllu sécurité police ak gendarmerie n'est-ce pas ak euh, wàllu Sénélec ak euh, wàllu Sonatel li nga bi daal war si si si congrès googu ngir am ba ñun ñëpp ñu am si réussite ñu am si ngërmal yàlla ak yonent bi ngërñe seen Touba. wax rek teew fii ci ndigalul sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Gaynde Fatma président de la président de la fédération ak membre fédération bi yëpp ci yitte ak wàccaayu. congrès bi ñu jëmal ñu dëgmal incha allah di le vingt vingt vingt six et le vingt sept janvier ci kàttanu yàlla ngir ñu waaj waajtaay woowu moo waraloon ñëw fii fekk si euh, monsieur le sous-préfet pour waxtaane euh, nan nañ ko war a àndee ci kàttanu yàlla mu mel ne bi ñu fi ñëwee fekk nañ ko fii moo ko personnel ak chef de service yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yëpp ñu waxtaane ko ci anam yi mu gëne yu dëppoo ak dayaayu fédération fédération bi ak li muy woote mu mel ne service yi ñu yittewoo yëpp woo nañ leen waxtaan nañ kenn ku ci ne ak laaju ci moom ci liggéey bi lañ ci yittewoo ak nañ ko nañu bëggee ñu doxee na ko nii moo mel loolu lépp am nañ ci ak juboo ci ñaan yàlla ñu fekke ko ca mu amee ni ñu ko bëggee ni ñu ko waxee euh, waaye nag di jottali cantu Serigne Moustapha ak fédération bi mu jiite yëpp jëmale ko ci seen euh, disponibilité donte na xam nañ ne administration loolu mooy rôle waaye wane wane nañ ci ak jàppandal gu gu mat euh, wane nañ ci it euh, jiite kon loolu it ñu leen ci. ñu leen ciy gërëm bu baax. waaw bis bi ñaari bis la le vingt six bi mooy bis bi nga xam ne ci lay mooy ubbi mooy mooy bisu biñ koy ubbee cérémonie bi ci lay jàllee mu mel ne bu jàllee li ji des ñi ñuy wooye ay congrégiste ñoom lay concerné ñu fanaane ci liggéey ñu xëy suba it dajewaat ci barab bi. waxtaane liggéey biñ ñu ne woon a def def naa loolu mooy mooy programme bi mu mel nag ne mbooloo mu bari ñëw ci daje ndax fédération bi moo toll noonu yaatu na ci àdduna bi ci ne ci àdduna ay délégué danañ fa jóge ñëw mu mel ni it ne kilifa yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi muy njabootu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo ko moom ndax liggéey bi liggéey bi lislaam la waaye ci biir yoonu murid lañ koy defee kon njabootu Sëriñ Tuubaa gépp am nañ ci aw yoon ñooñu it ah, invité nañ leen ci ñu ngi rafet njort ñu ñoom ñëpp dañ ci teew ak autorité sénégalaise yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal nga xam ne ñoom ñoo fi ne di ñu saytu mu mel ne liggéey boobu it am nañ ci wàllu rëy ca xam nañ ko moo waral tey suñu jataay bi.